si insécurité ku wax insécurité wax tamit euh, wàllum euh, drogue nga gis ne fu mu toll nii amoon na saisie bu am solo si drogue bi defoon na cent vingt kilogrammes de drogue euh, bu ñu saisie ak fan yi ñu weesu tamit port autonome de Dakar amoon na tamit saisie bu am solo bu fa amoon si drogue te quatre vingt kilogrammes yi de drogue yi kenn xamul foo si ay loxo yu mu mujj mu mel ni comme fu mu toll nii narcotrafiquant yi dañoo miin bu baax Sénégal lan moo wundu mbir mbër moomeen gars yi nga xam ne boo déggoon ay drogue donc loolu dégg ay Mexique ay Brésil mais maintenant de dafa mel ni comme ils ont changé de direction vers Dakar. xam nga àddina bi tey li ñuy wax village planétaire. Mhm. moo tax ma wax la tout à l'heure il ne campagne bi ak fii. Mhm. amoon na jamono yi nga xam ne lii xew fii balaa ko waa campagne bi yëg mais tey lii xew fii moom la waa campagne bi yëg. te nin koy yëgee ñun ñoom ñoom noonu lañ koy yëgee ndax ndax moyen yi ni mu demee mm-hmm. c'est ça le problème euh, quest que tu disais encore drogue bi drogue bi drogue bi nu muy bëree fu nii phénomène la mm-hmm. ci biir insécurité bi mm-hmm. li mu doon phénomène ci biir insécurité il faut ñu comprendre ni trafiquant wu drogue yi dañu am seen projet di ko doxalal seen bopp doxal seen bopp boobu conséquences yi dafay dal ci suñu kaw lan moo xew trafiquants yi dañu jël sunu zone bi parce que dañu gis ni fii mën nañu am pexe seen commerce om fii mm-hmm. mën nañ fi jaarale seen drogue mën nañ ko fii tamit jaay mën nañu créer ay consommateurs mën nañ fexe ba lit li potentiel lu ñi doon utiliser yenn drogue yi mm-hmm. su tuutee ñu yokk ko mm-hmm. nun koy yokkee ñoom am na seen stratégie mais mën nañ fexe tamit ba analyser ni Dakar kat euh, carrefour la su fekkee ni am nañ difficulté ci yenn yoon yi ñu doon nanu jéem jaar si fii suñuy jaar fii loolu dañ koy organiser ñoom dañu jël ay at ñoom tamit di ci liggéey di teg di teggi di teg di teggi ñun pendant ce temps ñu ngi ci suñu comportement bu normal ba ñu jékki-jékki nag commencé gis ay indicateurs yi nga xam ne daf ñuy won ni. Mhm. ñun kat euh, narcotrafiquants yi jël nañu. Mhm. jël nañu ñu jéem ànd ak ñoom comprendre effectivement suñu terrain favorable na ñu ngi ci doon liggéey mais ñoom jëkk nañu ci yenn coin yi situation bi favorable pour ñoom. am na insécurité bu fi am à cause d'autres régions par exemple raison à cause par exemple de la porosité frontière yi ay secteurs yi nga xam ni suñu insuffisance personnel ak effectif ak moyen mënul permettre ñu couvrir que terrorisme bi nga xam ni moo nekk ci zone ouest africaine bi yeneen tendance négative yi fi nekk ñu ni kon ñun kat nanu ñëw ci boor bi non seulement dinañ fi mën a jaay fii am fi xaalis parce que dinañ fi créer condition dinañ mën a nasaxal seen système Euh, de de de lutte contre la drogue mais itamit dinañ fi mën a stocké jaarale fi drogue bi pour yóbbu ko feneen loolu mooy logique ko narcotrafiquant yi maintenant que xam nañ ni loolu moo ñu tiim tey dañu war a gën a mën a réagir il ne faut nit ñi foog ni kenn réagir woon mais si réaction boobu est-ce que la police est assez outillée par rapport au naf au narcotrafiquant est-ce que ñoom am nañ ay jumtukaay yoo xam ne mun nañoo kar euh, ñii di narcotrafiquant yi wala sax identifier luy drogue parce que quoi ñëpp xam ne ni en matière de matériel police bi dañ see xaw a sooke tuuti mun nañu wax ne ruse la ñu gën a uti am nañu ko ah, am nañu ah, matériel am nañu am ay jumtukaay yu pointu yi da nga kay yokk waaw am nañu laboratoire de police scientifique da nga naan kay yokk am nañu cadre de coopération mais drogue bi nu mu fi ñëwee nii songu ko carrément Sénégal est-ce que policier bi pour euh, la police euh, disposé na ay moyens euh, pour pour pour mën a kar loolu naam sa fekkee am na benn ñaar laboratoire yu fi am mais drogue bi nu mu fiy duggee fu mu toll nii maara day taali waaw mais loolu dégloo li ma la wax ni la mm-hmm. nanu tey tuuti mm-hmm. drogue bi projet la ñu koy def commencé wuñ ko fii hmm. dañ ciy wut xaalis. ok ñoom loolu mooy seen métier mu loolu mooy seen dundin dañuy dem di ko béy ay ci ay réew jógewul ci asamaan ci ay réew ci suuf lay jóge ñu encadré ko def ci ay ay ay toni toni toni toni ton lii jaar fii Sénégal li fiy jaar rek la mais lu ñuy produire ci drogue ci monde bi yëpp jaarul fii. ñi li ñuy consommer ci drogue ci monde bi yëpp jaarul fii donc ñun phénomène la bi nga xam ni phénomène mondial la bi nga daf ñu concerné ni mu nu concerné mooy avant jëlewuñ ñu woon nii tey dañu jële nii mais malgré ça ñun ñu ngi doon suivre parce que OCRTIS xëyul juddu xëyul juddu dañu amoon benn dispositif bi nga xam ni moo gënoon simple pourquoi parce que euh, vraiment amuñu woon problème yi ba ñu commencé gis nii problème bi kat mu ngi commencé jaxasoo ñu créé office bi nga xam ni moom dafa spécialisé ci brok loolu la OCRTIS juddoo mais bi ñu demee ba xam ni problème bu ñu commencé di ñu ngi demaat ci yeneen changement di créer ay structures yi nga xam ni di wootal euh, service yi nga xam ni ñooy xeex drogue bi pour ñu gën a lëkkale seen ay pexe gën a ànd ci liggéey bi di wootal yi tamit communauté internationale bi ci multilatéralisme ñu seet nan la ñuy def ba dajale suñu doolee davantage mais yi tamit ñun ñuy taxaw en tant que Sénégal di seet ñun suñu politique de lutte nan lay nekkee suñu politique de lutte propre contre la drogue mais du phénomène bi nga xam ni tey dafa taxaw nii rek est-ce que ñun am nañu ay moyens ñu ngi ci woon mu su ñu cee jógee ñu ngi ci taxawoon carrément te ñu ngi continuer di gën a taxaw di xalaat di ànd ak suñu bopp di ci xalaat di ànd ak organisme yeneen réew di ci xalaat di orga ànd ak organisme international parce que phénomène bu phénomène bu rëy la mais nag danga nga naan dafa mel ni ñoo ayee parce que fi ñu doon jaar li ñu fiy jaarale am na fu mu doon jaar avant mais su ñu demee ba dëpp di ko jaarale fii c'est parce que ñoom organiser seen bopp fii. kon ñooñu euh, fi ñu doon ko jaaree ñoom euh, dañoo euh, léegi sécuriser seen ay frontières. mun na donc c'est à nous maintenant de maintenir. la sécurité na mun na dañuy mën na doon sécurité boobu mën na doon stratégiquement mhm. alterner. dugg si benn zone bi nga xam ne suñu leen bettee te doole gi ñu leen songee parewuñu dinañ mën a jàllale lu bari balaa ñoom ñu yeewu fippu comme ñële fële nag ñu doon jaar bu yàgg yàgg yàgg yàgg comme ñu ngi fay continuer jaar suñ doon jàpp cent ren su déwénee dinañ jàpp deux cent su déwén jégee dinañ jàpp trois cent donc ñun dañuy gën a am foofu difficulté nanu song ñi nga xam ne pareeguñu pour deux raisons dinañu jàll mais tamit dinañ leen dugal ci situation wu ñu nekk ay pays yu consommer drogue ñu nekk ay pays yi nga xam dañuy dugg ci activité de trafic international de bi ñu nekk ay pays yi nga xam ne réalité drogue dafay nekk comme ni mu jaxasoo États-Unis feneen ak feneen ak feneen ak feneen ñoom dañu am seen ay politique ñun ñoo war a réagir tey nag léegi pour que phénomène bi bañ ñu déborder pour que lii nga xam ne ñu ngi koy am di ci jàpp di ci jàpp di ci jàpp ànd ak pays yi ñu wër ànd ak coopération internationale ànd ak ñeneen ak ñeneen di def il faut que ñun ñu yokk suñu loxo gën a téye te xam ni problème bi mu ngi suñu kanam problème mu drogue dangay taxaw teew di liggéey tous les jours pour que phénomène bi bañ la déborder soo ko deful effectivement da ngay jóge ci biir situation dem ba nekk un pays narcotrafiquant ça veut dire que drogue bi dem ba nasaxal ce système de répression nasaxal sa économie ci ngay nga ñu comme xaalisu drogue bi di fi dugg ñu ko fiy blanchir sa sa sa industrie xaalis drogue bi di ci dugg ñu ciy sa banque xaalis drogue bi ci dugg sa système financier xaalis drogue bi di ci dugg ñun foofu la ñuy baaree. waaw si drogue boobu ba tey euh, euh, professeur euh, commissaire maa ngi dégg benn interview mu ngi doon am waay immédiat yaa ngi wax ne drogue au Sénégal dafa mus a am problème sécurisation. lan moo wund loolu wu tax euh, saisi yi à chaque fois muy am fuite waaw xam nga lu nekk rek ak ni mu tegee xam nga su fekkee ni fàggandiku wuñu walla prévoir ñu lenn ba fàggandiku ci su amalee njëriñ doomu aadama rek ay caay-caay mën na ci dugg te effectivement état bi fu mu tollu woon dafa tollu ci simplification comportement investir ci ay gradé ay officier ay nit ci formation bi ñu leen def ba noppi bàyyi leen ak matière bi ñooñu bu ñu gisee ni ci biir lii suñ ci duggee ndëngte dina leen amal njëriñ rek dafay yàqu loolu jël nañu leçon bi effectivement. te drogue dafa am mafia bu am doole parce que maa ngi dégg euh, sa interview boobu ba tey euh, yaa ngi wax ne yow tegal ne la sur la table euh, benn xaaji milliard. oui waaw mel comme xaalis ak drogue dafa. loolu moom mos a boo tax dégg boo déggee ma da nasaxal. Ah. nasaxal nasaxal kenn mucc ci yéen presse bi bu leen narcotrafiquants yi soxlaa. dinañ leen nasaxal dinañ wut ay acteurs yu nekk seen biir ñu utiliser leen pour un besoin de communication bu particulier noonu la ñuy def fu ñu mën a nekk su ma nee par exemple état bi dafa fàggandikuwul ci yenn anam yi dafa cause dañ dem ba naagu mu causer benn infiltration ñi nga xam ni xalaat nañ ni suñu buggee jàllalee drogue bi nii il faut que ñu wax ak ay nit il faut ñu am leen jàppale leen ci seen biir yoon mais dañ leen di wax ak ñoom neexal leen organiser leen loolu moo xew ci àddina bi yépp du problème mu Sénégal kon foofu corruption dugg na. corruption tout le temps drogue ak xaalis ak corruption ñoo ànd tout le temps. donc drogue mun neen wax ne drogue drogue égale insécurité égale xaalis bu bëri égale corruption ak mal gouvernance drogue xaalis moo tax mu wax la tout à l'heure ni balaa ñuy àgg ci étape yooyu nga tudd. Mhm. muy état bu nasaxal suñu réew à un point tel que ñuy naan Sénégal c'est un pays narcotrafiquant loolu lu koy indi ça veut dire que suñu biir ay administration infiltré nañ ko ba dugal ci ay nit yi nga xam ni dañuy téye cadres yi ak ñi ci suuf ci ay xaalis ba ñu leen di jàppale seen trafic. mais ñooñu noonu ñu infiltré ñooñu ay policiers la ñuy doon wala ay euh, fonctionnaires de l'État wala ñu féetoo sax si au le plus au plus au sommet de l'État. ñu ñan leen la ou bien c'est tout un. lu nekk mun na am dégguloo mën la yéen. Mm-hmm. presse bii yéen presse bi buñ leen soxlaa mën nañ leen infiltrer parce que soxla nañ leen. buñ leen soxlaa mën nañ leen infiltrer parce que xaalis mooy indi infiltration bi intérêt dañuy jouer ci sa ay intérêt pour infiltrer la tey man bu ma nekkee occultiste ñu xam ni man nii kat ñaari schéma li nga doon wax ci denc bi am dina am drogue buy jaar ci sama loxo te drogue boobu kat man rek maa koy denc maa xam da koy soxla du fii rek Sénégal am na yeneen façon yuy am feneen ni ñuy braquer banque yi noonu la ñuy braqué dépôt drogue yi ci. loolu moo tax sénégalais yi sax des fois dañuy euh, foo xam naa fo rek di wax ne euh, policiers yi li ñuy <laughs> lu ñuy taal du du du drogue c'est juste euh, meew la. waaw mais amoon na beneen jamono il faut que ñu wax d'accord. Hmm. ne amoon na beneen jamono loolu dafa justifié woon. Ah. que ni liñ doon taal du loolu. parce que man damay wax pour que sénégalais yi xam. Mhm. li ma dal mooy. kaay jox ñu li nga xam ni moom lañu war a taal ñun ñu jox la leneen lu ñuy taali lu dul drogue ah, kon des fois euh, ça arrive que lu ñuy wane à la télévision euh, di taal loolu du doon drogue leneen beneen pëndax bu weex la pour euh, naxasal xel yi nit ñi. drogue bi ñu rawale ko dugal ko fu mu war a dem. loolu amoon na parce que man bu nee amoon na. Ah. parce que man loolu lañ ma proposé bi ñu ma ko proposé j'ai yi loolu xajul ci man. waaw commissaire loolu doy na waax de. waaw mais loolu mooy drogue dégloo man la loolu pexe la ci mais am na réew yi nga xam ni lii ñuy wax par exemple dépôt drogue Quai d'Orsay France ñu ñëw ni ko doññet cinquante kilos de cocaïne moom laa ci mujj dégg France la mm-hmm. Marseille le chef de la police judiciaire u Marseille ñu yóbbu ko juger que ndax problème mu drogue mm-hmm. feneen ak feneen la police des polices day agir ci biir policier biir gendre gendarmerie yeeg beneen yeneen corps yi pourquoi parce que drogue dafa am xaalis. Mm-hmm. il faut que ñu d'accord ci loolu protéger nit ñi liggéey ci drogue bi mooy jëkk fàggandiku seen diggante ak xaalis bi nekk ci drogue bi ci seen formation ci seen encadrement ci seen protection sociale ci lépp li nga xam ni dafay jëm ci woyefal seen dundin ba tantation bi du leen jot drogue xaalis la li nga xam ni soo ci tuddee kilo. ñu ni cent millions kilo cocaïne cinquante kilo kilo boo nee quarante kilo ñu ni lu mujj bi xaw ma quarante la xaw ma milliards. Mm-hmm. loolu mooy drogue.